gannaaw bi ñu leen dégloo également indi ay réponses réponses yi mooy euh, ci wàllu sécurité ñu taxaw ci wàllu santé ñu taxaw euh, ci wàllu aménagement voirie et autres ñu taxaw euh, ci wàllu également accompagnement par rapport à l'éclairage à la fourniture en eau loolu lépp macha allah waxtaan nañ ci ca requêtes yi nga xam ne wax nañ ñu ko nous avons une une réponse satisfaisante à euh, à la satisfaction du comité d'organisation. Nous avons paree ci réunion décision que préfet Boudakar, le sous-préfet et euh, l'autorité gendarmerie la police ont ak Ageroute une euh, visite de site avec le comité pour jël toutes mesure bi nga permettre à ce que dem dekk bi yomb ci walu appel bi déjà première solution bi ñu jël yon que yoon bi ñu tëj ca gis nañ ni tëj ko yokk na yi jël nañ décision en ci ak kilifa ci pour ubbi le temps que appel bi jall et que ñu mëna tamboli euh, tàmbali liggéey bi déjà loolu première solution la en attendant maintenant que comité comité bobu ñu mettre en place dellu pour indil ñu yenen yeneen proposition yi nga xam ne bu ñëwee dinañ ko valider ngeen ñëk ko ñëp inshallah mesure nak nag si tënk yu si ëpp vraiment amu ci problème yi ñu am problème moy problème mu mobilité bi yeen ñëpp ko gis travaux yi ñu entamé ci rond point bi jëm aéroport gis ngeen né da fay bloquer circulation bi ñaan nañu gouverneur mu mettre en place un comité présidé par le préfet pour trouver une solution définitive benen problème bi moy mobilité batay ak Cambérène Cambérène légui xatna voie de dégagement bu malik bi VDN bi on a demandé dañ demandé ouverture bi ko ubbil pour pèlerin yi bayiko Malika ak ak Tëngéej Kër Massar ak Mboro mën a jaar ci commune bi exi waye waaye bu également Cambérène ñu ngi ñaan aménagement parking sous le pont ak parking jamono pour mën assurer né pèlerins yi buñu bayiko bàyyi ko Cambérène mën a rapidement ñi jëm Ngor jëm Ngor ñi jëm yof euh, euh, Yoff jëm euh, yof benen bi ci dess moy assainissement bi problème bi wax nañ ko mu ngi bëgg a durer dañu bëgg ñu régler ñu problème ndox bi ta ci buntu keur imam Maxtaar ci avenue Seyna isa Rouhou yof yoof bu de la dëkk bu sell la waxuma sax appel bi appel moom xelaatuñu sax ñu ñuy bayil fofu ndox mi waye bu appel passé nañu trouver une solution définitive wax nañu ne problème bi ONAS dépassé nako nak problème moyen la ñu def nañu demande au président de la République pour nous trouver une solution définitive à ce problème là